la ñu taxawal borom Bargny borom Rufisque borom Tëngéej kenn si di lamb làmb di xale boo xamante ne nii kenn dootu ko présenté ci làmb tey mu ñëw teewee bés boo xamante bés bu màgg la daye bi mu àndal combat kenn si ñu ngi lay nuyu. waaw mais maa lay fay. bàyyi am jàmm. maa ngi sant ba baax. làmb namm la ñu namm la. waaw mais nama naa lamb nag période bii nag laa gën a namm làmb quoi. soxu tey nga ñëw ci bés bu rëy Jamba woo woote ci ñaari xale ñaari ndaanaan muy soxu ak Franc. lamba ji noo ko gisee. waaw mais kon daal ñaari espoir la. comprends nga tey ku ne kenn ki war a xaar kenn ki war a jàll. comprends nga ñu ne comprendre nga koy nag su ne war a ñëw confirmé xasaasoo nañ mais nag combat bi favori que que le meilleur am na ñoo xam ne mooy favori. waaw parce que si compétition mbapat bi moo tax ñu ne mooy favori quoi. parce que soxu quatre défaites la am. waaw mais loolu du si dara loolu yëpp du dara mbër moom mën naa am quatre défaites dem yoonam mooy loolu. ndax ndax coince mën nañ laa xaar si ñaari mbër yi ku daan. non non man sama bët waa xalaat na leneen lu Sokh. waaw. kon kan moo nekk guy laa bëgg guy gi laa bëgg. guy gi waaw bu géejewaay. guy gi bu waay na ma may chance te yàlla. waxal ak moom. guy gi ngir yàlla may ma chance maire maire Woré Sarr maire Woré Sarr. jaaree ci maire Woré ah, Sarr dina dina tamit na jàpp si combat mu taaw comprendre tey damaa ñëw àndaat sama doom day Alpha Kayta. Alpha ñu bëree sama quatrième combat moom laa bëre loon. ndeysaan bu nit ku gore nit ku baax. wallaay lii mooy lan moom mooy presque moom lépp lu mu doon def si làmb rek dina nga investir si man. tax na yomb bëre ba tey bi ñu ba nii may waxee yow nii génnewul loo xam si man. tax ma loo ñàkk ki ñaan mbër mu daal la bëre nga wëlbati jàppale loolu yombul te tey bu ma xamoon ne nii lay mel si man loolu bëre te nee na daf ma bëgg rek ndax sëñ Babacar xam loolu yombul comprendre nga dañu bokk lépp mooy waa Bargny ñi fa waa Bargny Bargny tëngee a fa uh-huh. tey nga ñëw xoolal stade bi nu mu taaroo ah, li la soxla quoi lamba li la soxla lamba tekk na bilaay lamba li ndax jotul xale yi dem ci kaw waaw mais il est parce que dañoo sonn mais grand a tey bu baax Eumeu Sène bàyyi Bombardier bàyyi ñenn ñoo fi des Sa Thiès ñoo fi des. wallaay ndeysaan. ah ñooy ñoo fi des boobu mais génération boobu foog ñu am ay xale yu leen rax seen biir comprendre nga ñun dañu war a fële seen biir. wallaay ndeysaan mais gars guy gi laa bëgg a guy gi kese ak a bëre ak Garga Mbossé wala Yékini Junior. mais eh, maa ngi leen di ko bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a a bëgg a a bëgg a bëgg a bëgg a a bëgg a a a a a a a bëgg a a a bëgg a a a a bëgg a a bëgg a a a bëgg a a bëgg a bëgg a bëgg a a a a a a bëgg a a a ñun ñu ngi xool bu baax. mais c'est normal déggoo lii ma la dama la ma mën a laaj te man Marley defu ma fi lu mu deful Marley man defu ma fi lu deful te mënu ma ko bañ si làmb mais dama ne la man sama sama bët sama bët teg naa ko feneen fu dul du question ko pare wu ma pour Marley de. tey Marley bu ma ama promoteur saison fay ma lu ko jar ma bëre moom mais dama na man dama sonn si booy yow imagine chaque bëre say morom mooy loolu man dama bëgg combat soog parce que il est doon roi li ma koy may roi des arènes daan pour doon roi des arènes sama potentiel adversaire mooy Yékini Junior Garga Mbossé numéro un ak guy gi guy gi nag laa gën a soxla mais tey grand combat bi noo ko gisee waaw mais que le meilleur gagne parce que ñaari xale la ku nekk entraîné ku nekk xool naa la allah mais li bu ñu ko confirmé mu ne waaw mais c'est normal dañ war a yéeg si kaw te ñoom ñooy escalier ñoom biñ tolloo fi dañ leen mayoon sens mais il est temps ñoom ñu may ñu sens comprendre nga ñoom ñooy escalier foog ñu jaar si ñoom. mais sa yaakaaroon ni nooy neex. mais bëre à say morom nga man am naa presque 16 combats te fi ma taxaw mënu ma fi jox mooy loolu tamit. ba tey déggoo li ma la ba tey même Zarko